li ñu war a def mooy village bu ne am na cosaan ña fa dëkk xam nañ ko fa mais sampal lañ nañ foofu ay jàngoog ak ay jàkkak bi ña nga xamoon sax fa tuur ya nekkoon sax buggatuñu sax wax ne lii tuur moo fa nekkoon waaye bu ñu dellusiwaatee suñu xel bañ a jël diine bi méngale ko euh, aada gi kon lu bari dina régler yaa ngi dégg ndaxte yow wóor na ma ne dëkk ba nga dëkk am na cosaan ba fa nekk waaye am na ay nit ñu bari nekk foofu boo nee pangool yi fan lañ nekkoon wala yooyu ñi ko xam sax dañu naan dëkk bi xamul loolu kon dëkk boobu jafe-jafe du fa jóge lébu yi xam-xam yi ñu yoroon lébu yu bari lañ daan def ci géej gi defatuñu ko loolu jafe-jafe la séeréer yi liñ daan def ci àll bi yépp jafe-jafe la ñoom ñàpp kenn ku ne génn wàll gi yëpp nag waxuma ñëpp waaye am na ci ñoo xam ne kurus bi këpp lañuy jël mbuboo ko di wax rek te génn wal gi la ñuy wax dara gëmuñu ko ca gëmuñu ko de ndaxte boo nee lii baaxul te boo njàmbee sa ndib nga fekk foofu boppu kaña walla boobu kii wala nga fekk fa yàqu nàngam ba pare bugg a topp nit ñi di leen naan lii amul amul naxante bi moo fi bari man nag ñi ma yërëm mooy génération buy ñëw loolu jafe-jafe la sarax yi comme ni ma ko waxe woon rek yii di ñëw ak yii di ñëwaat mën naa bañ a doon benn waaye ci jamono yi accident yi moom taxaw nañu comme ni safara bi taxaw woon noonu la accident yi taxawee moo gën a bari mooy gën a bari waaw léegi nag ñun àggaguñu ci nawet ba mais ci jamono yi ñu ne nii ku mën a jël sa kër nga togg ceebu yàpp saraxe ko mu génn kër ga mbaa mu ñàkk génn kër ga bu ko uppee it baax na waaw mais yàpp nag lay doon parce que bu ku ko deful it ah sa bopp ndax àdduna moom ngom-ngom la waaye ku ko mën a def nga jënd ceeb togg ko ñetti plat ceebu yàpp nga saraxe ko baa nga yóbbu ko ca jàkk ja ñii mbaa ñu yóbbu ko feneen fa ñu dajaloo ñu lekk ba pare ñaan pour musiba nuñ koy defee ci ci tamxarat xam nga dañuy dëkk dëkk dëkk bi yëpp toog toog cere mais tamxarat boobu sax bu yàggee gars yi buñ déglu sax ñu bari dinañ ko fi jële de ndax am na ñoo xam ne tamxarat bu jógee sax duñ toog cere xam nga lu ñu se ay mis yu la ñuy teg ak seeni mburu kon aada ba amatuñu te waa kër gi yëpp fu nit dëkk da nga waroon ñëw ngeen daje ci kër gi toog seen cere booleen leen pare ngeen dëpp bool ba ñaan yàlla pour jàmm wàcc mais loolu xam nga amatul kon boobu encore jafe-jafe la mais fu ma ne nii ci sama gis-gis mooy ku mën a toog ceeb bu weex la la dale ñett ba fa mu toll nga saraxe ko ña koy lekkit jublu ci ñaan pour ay bi wàcc ci kaw nit ñi mu def ko yaa ngi dégg ñi bari doole nag mën na noo jënd seen ceeb bu bari joxe ko saraxe ñi jënd dugub saraxe sarax yooyu moo yor réew mi dégg nga waaj loolu mooy mbir bon euh, musiba yi mooy li nga xamante ne moom laa lay junj nii rek bu ñu fàttee sarax yi ñuy def musiba bi faw mu wàcc loolu moom ci xam-xam laa la koy waxe waaw rawatin nag lu jëm ci mbirum polotik noonu bu am ci réew mi mbirum politique la tàndaas bokk ak nit ndey ak baay mu ne kii waali la àndal kii joomaay la àndal kenn ku ne di fexeel sa morom loolu jafe-jafe la loolu mooy indi moo tax ci làng boobu laa gën a tiit sax gaañante bi foofu lay gën a bare waaw ci xam-xam waaw ci ay pexe yaa ngi dégg bu baax li ma lay wax kon donc xëj na jombul bu nu gënee jublu ci bërëb yooyu rek dinañu yàlla dinañu gën a leeralaat rek li nga xam ne moom lañu ñu war a def ba mbir mi yëpp mën a régler parce que loolu moom ku lay mën a nax ni la naan lii amul ci réew mi moom dangay ngay wax rek waaw mais loolu ay wax la rek loolu ay wax la rek ak ay tiitalaate ay wax rek xam nga fu ne nii kenn ku ne mën naa nekk rek di naan euh, opposition bi mooy mooy def lii ñii ne naan pouvoir bi mooy def lii mais man gëmuma yooyu man loolu man gëmuma ko Eh, waxoon naa fi jamono armeel yi eh, politiciens yi laa ji ñoo fay dem ak mbërum làmb yi xam nga la tax ma wax ko it mooy lañuy suul la plupart ñoom ñoo koy suul waaw ñii di suul li wala te entre mbëri mais policiers yi ngay gis ay jàngalekat yeeg gendarme yeeg footballeur yi ñooñu amuñu fit ndax dem ci armeel waaw yooyu moom mais ñaari jigéen boo fekk ci armée li mu takk ndigam mu ngi ci làngam politique loolu moom xam-xam la waaye yooyu moom yàgg na ci jamono xanaa télé yi ñooy door a am rek ak rajo yi mais dem ci armée li moom du tey xam nga ñoom buñ la nee sulli yooyu moom ci xam-xam la rek yooyu détail yooyu moom duñ ci mën a sori <laughs> loolu moom duñ ci mën a sori yàgg na ci réew mi loolu yàgg na ci réew waaw mais mbër yi daal mais rey moom sénégalais xamu ko buñ la nee politiciens yi ñooy rey yow bugg a jiit ay nit bugg a jël gune sa dëkk ba di leen rey loolu xel nangu na ko loolu koy ay wax la rek la ma la wax te ngeen bañ koo dégg mooy loolu mooy jinni yi rab yi ñu tooñ ñu ngi vaase wu rab yu bon yi ñu ngi dugg nit ñi yow nga gis nit ku jël nit salaamaaleykum nga jël paaka rindi ko te doo ko teg fen parce que fii gis naa fi ay nit ñoo xam ne wallaahi barke sama bay. ay nit ñëw nañu fii ay rab jàpp leen ñu du leen suur nii ba nit ne fur génn ci sër bi loolu boo ko laajee ñoom Babacar ñii dinañ la ko wax du benn yoon du ñaari yoon di suur nit ki muur ko ser bi ser bi di naaw benn nit gin ci biir loolu am na fi du benn yoon du ñaari yoon kon kooku ñu laaj ko ne kañ nga ñew kër koromak mu ne xawma te ñu jël ko dëkk ba dëkk indi ko fi yew ko ay bu muy xatraay di di di di di ma lay wax barki sama bay lu leer nañ nañ nañ nañ nañ nañ la leen di wax waye débat bi nak du arrangé de yi parce que jinn yi dañu lënkoog nitu gudi moo tax moom euh, manam li may wax mom <coughs> ñu bari moom duñ ko mën a nangu ñen wal yépp kuy naaw rek da ngay bañ waaw bul tax ma daw la de boo ne loolu amul yow yow sa maam yi nga am yëpp kenn mësu a cee wax ne lii xew na bu ñu naxante buñ laxante loolu ku la ne amul daw ko ñaara ci nekk bañ koo xam baa nga doon ko te cey boo ko doonul bu la jàppee di nga xam ne am na ñooñu nag ñooy nënkaloo jinne yi di def ay sacrifice ji léegi nag jinne yi buñ duggee yow këru jàmbur nga tas ko yàq ko mu xam loo xamut mën a def càllambeer def ngelaw dugg la nga rey sa yaay ñu jàpp la tëj la ci kaso bi parce que loolu rek la la mën a teg la lu diis rek parce que yaa ko njëkk a teg lu diis mënoo def sacrifice mais garab yoo xamante ne moom li koy toxal yomb na laajal waa dëkk ba mais faw ngeen déggal leen ah, diine chrétien wala ngeen tegal leen diine musulman ba génne leen ci fas boobu nit ñi nekk foofu ñiy dof xale yi bu ñu mën a dox ñii duñ mën a wax yow nga ne loolu amul te bu guddee nga dem ci sëriñ ñu di lay ñaanal ah loolu mooy defaram réew te yow boo waxee mu ne di du diw du jullit te nit ñi nga xamante ne ñooy dimbali nit yi di leen faj yëpp kenn du leen jiitu ci jàkka yi duñ tardé magal duñ tardé tiwaa duñ tardé tuwaa duñ tardé ci église may nak xam nañu leneen loo leen xamal du leen dimbali ci loolu nag ñi nga xamantene ne maanaam ñooy ñooñu dugg ci biir nag di naan waaw loolu amul amul bu trompe askan bi nañ bàyyi loolu loolu jafe-jafe la waaw ñu ñaax aussi politiciens yi seen lépp ñu teg ko ci yoon ndax yàlla moom bu lay jiital moom day bëgg rek nga teg lépp ci yoon bañ a jaay doole bañ a tooy sa morom yow itam nit bu mu am dara nga añaane ko ko ñaar moom bari na ci dëkk bi jow ak fen waaw wax lu dëgg ci nit lu la dara leerul nga waxal ko lu ñaaw bari na fi te ñaar yi baaxul ci dëkk encore jooyu baadalu ak jooyu fas waaw muy mal yi ni ngi leen di toroxal boo demee mbuur gi wala jiwaalu gii dangay gis ñu tàkk ab sareet muy dox ci biir kii bi ba nga xam ne lii fas baa ngi jooy loolu musiba la aussi di liggéey ci suufam nga noot ko jël ko jox ko nasaraan ba nga xam ne moo yeewoon baayam démb di ko yóbbu ca uh, kii ba il boobu ñuy ko waate gore yow nga ñëwaat encore jëlaat suuf soolu jëlaat ko njaam mi day am ñaari façon mooy sa baay daf ma forcé woon mais kii daf may forcé ci naka ci xaalis xaalis bi nu mu koy dangay jàll fi ma doon béy te indiwoo fi dara bu dul ay këyit suuf si ci dëkk bi nga yóbbu ci banque bi banque bi lebal la xaal nga liggéey ko di liggéey loo yi ah te it nit bu fi tabaxee ay mbir doon ab tubaab di jël ay nit aussi ñuy yurnu ba xam ne employé yooyu ñaata la ñuy am parce que loolu aussi booy fay nit ki cinquante mille par weer ba pare te néeg bi ngay joxal nit ki bu ci nit ki finaanee benn fan nga fay ñaar fukki junni te kay nettoyé néeg ba bo divisé 50000 par 30 jours ñaata la am par jour lolu aussi jafe-jafe hein ñi ñu jël sen souf si ñu jën ay auto tek ci biir hôtel yi ñu ne ko auto yi dañuy sonal wa hôtel bi ñu dakk ñooñu jël sa suufu bay nga wut kalando nek ci tefes bi di di nek ci buntu hôtel bi ñu jëlee la fa ñu jël ay carte fa lolu moy demal sàcc demal agressif côté bobu mom du ay jinni